xibaar yi gi li jot a ci biir réew mi comme niñ koy defee saa su waxtu wi jotee rek tënkal leen xibaar yi jot a ci biir réew mi ci kàllaama koccu tey ci euh, àllarba yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci atum 2023 dañuy doori xibaar yi rek ak lu ñel dossier bu Miss Sénégal 2020 mu di Ndeye Fatima Dione coowam ak ki nga xam ne moom moo di comité d'organisation euh, bu Miss Sénégal di Fatima Badiane Eh, ñoom ñaar nag eh, Aminata Badiane du moins coow jotoon na fee rek daal di am eh, depuis deux mille vingt et un te mu mujjoon ci yoon dossier boobu nag fi mu toll nii dañu ko mujjee rek classé sans suite ginnaaw ay preuve yoo xam ne amul lenn loo xam ne rek mën naa daal di tënk kile di Aminata Badiane ci coow yeeg yenn accusation yi nga xam ne tegoon nañ ko ci kawam ne dafa doon def apologie de viol ba ay plainte yu bari jotoon saxaat tegu ci kawam ñu ci mel ni Jamra ak ñeneen. ñi nga xam ne jotoon nañoo rek daal di bokk si ci bi lépp histoire euh, ginnaaw si loolu nag ba fi coow li toll nii tey euh, déggoon nañ ci ay rumeur yu xam ne sax ne kile la di Aminata euh, Badiane li ñu koy jiñ defu ko benn yoon day Fatouma Dione xam na kan mooy bàyyi doomam ginnaaw si loolu itam mariage sax a ah, tuddal nañ ko ko fi tey lu ñu mën rek daal di ah, xamle ah, ci bile histoire moom moo di classement sans suite maanaam sans preuve ci bile dossier ak li ci umpoon sénégalais yëpp waaye ci leneen loo xam ne itam ñaar ñu bokkoon ci bile coow ba taxoon rek plainte daal ci seen kaw mi di biram bu série maîtresse d'un homme marié ak mamiko ñoom ñaar ñëpp nag ay plainte daal di nay topp ci seen kaw ba tax juge bi daal di cay ubbi ab enquête ngir mën a xam ah, li ñu leen di toppee mu di diffamation ak injure publique gi nga xam ne jotoon nañu ko rek daal teg ci kaw ah, kii la di Aminata ah, Badiane. ñu dal di wax ci leneen mu di mariage du soxna Aïda Diallo bu Cheikh Béthio Thioune soxna Aïda Diallo nag démb la ñu dal di annoncé ab mariage am digganteem ak politicien bi di Diop Sy Diop Sy nag ginnaaw bu ñu annoncé mariage boobu nga xam ne ñi ngi doon lam-lamee dëgg la am du dëgg moom dayu mbili gi daal dinay réagir ci page Facebook am ci boobu lépp communiqué mu ngay xamle ne mariage bi nga xam ne fu nekk nit a nga ko fay wax fu nekk ay nit di ko fa o di koy laajte mariage boobu nu mu demee yëgul tinul maanaam mosul rek daal di jël soxna ki nga xam ne moom moo di ay Aïda Diallo ginnaaw si loolu itam Diop si daal dinay xamle ni xamul sax ñen ñoo nekk ci ginnaaw bi la publication ak lan rek lañ si jublu si ñaar ñoo xam ne ñoom ñaan ñëpp dañoo am ay famille ñaaw na ba yegg si loolu mu ne itam daal dinay baalu ak ki nga xam ne moom moo di ay Aïda Diallo ginnaaw rumeur yi nga xam ne jot na rek daal di jip tab bi ci kawam te moom yëgul tinul xamul sax lan moo rek daal di xew mu ne naka naka noonu dana ko rek daal di eh, xamal sénégalais yëpp ne rumeur yi yëg ci jot a jib yëpp dara amu ci ñu des ci mbirum euh, people ak euh, kaawu euh, Soumboulou Bathily Abdoulaye Diop Khass divorce boo xam ne depuis altine jàpp talaata ba àllarba ci tey ñëpp moom la ñuy waxtaanee ndax demal ma ñëw gi nga xam ne moo ci rek daal di am waaye itam jokkoor maajoor jokkoor leen gi nga xam ne moo mujjee am ci diggante Soumboulou Bathily ak Adji Mass di xaritam abu ah, mu ne ñoom ñaar ànd nañ lu ëpp fukki at waaye mu mel ni fi ne caaf daal dafa daal di xëm ci seen diggante ñoo raw safara ak ne nii ci ay geeru jamono yoo xam ne ci la ñu nekk ku nekk ngay expliquer ci sag wet ngir génne say audio ba a ña nga xam ne ah, ñoom nga bëgg ñu gëm la ñu mën laa gëm ah, li waral lu ni mel nag moom Adji Mass moo njëkk rek daal di ah, xamle divorce bu ci noonu mu jur ñu bari dal ci kawam di koy xamal ne moom mooy seytaane bi moom dafa bëgg rek sumbulu daal di divorcé bu mu ànd ak moom ñuy di taxawaalu waaye itam ne daf ko rek daal di na loolu nekk lu ko metti ba tax démb di def ab di leeral ci leeralam boobu nag la daal di le ne sumbulu ci boppam moo ko daal di sant ngir mu daal di wax ne sumbulu divorcé na ba tax mu daal di koy def waaye dañ ko rek daal di saraxe maanaam dugal ko ci ba ci biir ba noppi bëgg ci aroo ceeku génn te kenn deful lool ku dul Soumboulou mu ne nag yabul sumbulu yab gu toll ni toog di koy sosal wala mu koy waxal loo xam ne amu ci concert consentement wam mu ne waxtaanee nañu ko ñoom ñaar ci kër Balla ba Soumboulou ci boppam jox ko avalam Soumboulou bëggu ci woon feeñ ginnaaw si loolu itam Soumboulou génn na dal di tontu kële di Adji di mim li nga xam ne moom la Adji Mass wax ne musu ko ko rek daal di wax naam bu fekkee moo ko wax divorcé na te itam waxoon na ko sax mën nañ kaa siiwal waaye bu fekkee ne taskatu xibaar yi wax nañ ci ba pare euh, te bu boobaa itam sëy bu ñu takk mu siiw bu divorcé dañu ko war a daal di euh, siiwal euh, ci noonu itam ñu gis ne ñenn ci influenceurs yi ñu ko mën a tuddee soo ko Sokono stress ak Adamo mujjee nañoo dugg ca coow la bu ko nekk di yàq sa morom ak keteme waaye itam ku nekk di wut camp ba nga far la ca gën a doy war moom moo di fi ne divorce ba am naam amul lu ci mënti doon sumb lu ci boppam yi nga xam ne jot naa rek génn démb ci live wu Sokono stress ma ngay gën a dëggal ne que moom moo wax Adji Mass ne ko daal dinay divorcé ak kile di Abdoulaye Diop Khass ñu wax ci leneen lu ñeel askan wi ay samba boy yoo xam ne rek daan nañ leen di jàpp ca Jacques Mbaw ginnaaw coowal càcc goo xam ne rek moo fa amoon tax ñu daal di cay jàpp juróom-ñett ci ay doomu adama yoo xam ne ab gang lañu woon ci jamono ji nga xam ne ah, ci la ñu sàcce woon ah, benn waay boo xam ne mu ngi tudd ah, te ba ñi ngi ko sàccoon nag ay carte crédit yoo xam ne bu ñu ko xayma dafay toll ci un million deux cent akup motoom lépp lépp nekk trois millions sept cent ak lu ko rek daal di a ci ñu ñu jote jàpp rek daal dinañu cay tegaale loxo benn làmbaloog boo xam ne mu ngi ca biir sàcc ga maanaam mbër moo xam ne fi ne daal dinañu ko identifier bokk na ci gang boobu ak agresseurs yi nga xam ne ñoom ñoo doon agressé ka sàcc ba tax na fi ne ñoom ñëpp daal dinañ leen di placer en garde à vue ca commissariat bu Jacques Mbao ñu daal di wax ci wàllum cocaïne ak lim bu takku bi nga xam ne rek marine nationale daal dina koy teg loxo ci biir euh, géej gi euh, huit cent cinq kilogramme cocaïne la ñu daal di teg loxo bu ñu sukkandikook libération xibaar boobu mu ngi jiboon dikki depuis euh, dibeer bi weesu waaye dañu ko rekk daal di nëpp nëppal maanaam xibaar boobu bëgguñu woon mu daal di jóg benn yoon ñi ngi ko tegee loxo nag au bord du navire battant pavillon gambien ginnaaw information bi nag bi mu mujjee rekk daal di jib ba daal di cay am juróom-ñaari doomu aadama daal nañu leen ci teg loxo ñu di ay nationalité yoo xam ne rek itam ah, bokk nañu eh, ci ah, mbir moomu la it ah, bokkuñu fu ñu dëkk ab italien gambien nigérien ñoom ñëpp ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di coow looloo ak yooyu lay arrestation ba tax na ñoom ñëpp fi ne daal di nañu leen di place en garde à vue ba gën a xuus ci enquête baak la nga xam ne moom lañ leen di toppee mu di wàllum trafic de euh, drogue ñu jeexale xibaar yi ak accident bi nga xam niki démb ci centre ville bu ndakaaru benn camion bu perte ay frein am dal di saran rek ajato ramas ñeent ci ay moto ak benn oto boo xam ne mi ngi ko fekkoon foofu mu gaare ci noonu ñetti dawal côté moto yooyu yëpp dañoo rek dal di am ay gaañu gaañu yu métti métti waaye ka ca gën a métti le moom mooy ki duggoon sax ci suufu camion bi fi ne ma nga ca diggante dund ak dee noonu rek lañu ko dal di xam xamli ci li nga xam ne moom moo di boobu lépp accident sëfooru camion ba nag fi mu ne yoon dal dina koy tegandi loxo waaye itam ña ci am ay gaañu gaañu fi ne ña nga rek day gën a saytu lu jëm ci seenuk wér-gu-yaram mbokk yi xarit ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal amoon nañu mbégte bu yaato yaatu ngir dëgtal leen xibaar yi li jot a ruuse ci biir réew mi bi la xibaa xibaar fii la koy ndax képp te leen di jox digg dig ci ba ci kanam tuuti incha allah ci benn ñeen jotaayu xibaar jàngeen jëf.